bismillahi rahmaani rahim asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu noo ngi siyaare bu baax di nuyu nuyu bu sell di ko teg ci loxol Cheikh Mahamadou Basir mii toog defi sëriñ Tubaa ci noonu defi sëriñ Muntaxa noo ngi koy siyaare noo ngi teg sunu siyaare ci loxoom mu jàggaleel na ko Cheikh Mamadou Mountakha dellu si nuyul nu bokki taalibe yëpp gannaaw bu ñu leen si nuyoo gërëm leen nag dafa mel ne jataay bi dana am waaye ba ma masaan am itam sëriñ ba Basiiru day wax soññee mbale mi rek nuy am nag sunuy jataay yoo xam ne nun noo koy amal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 murid saadiq may tax sa mbir yëpp yéen sëñ bi nangul nu kon nag noo ngi jégaluwaat sëriñ bi dañoo mën nañ ñàkk kàddu sànni kàddu yi ndax li muy waxoon waaye bu nu wéetee nag dana soññeewaat bokki taalibe yëpp ma bokkaat liggéey bi lépp jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu